Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh mbokk yi baaxoo ànd ak mbokk yi nga xamanteni ni ñoo baaxoo ànd ak ñëwoon ci seen télévision bi nga xamanteni moy muru TV ñi ngi desiwaat mbokk ci naafile yi nga xamanteni ni nañ ko and ak yeen ci biir wéru mag wi nga xamanteni moy mooy ramadan ramadanil mubarak dañ koy jukkee ci téréb serigne Soxay bu bobu radiyallahu an Muni guddik fukel ak ñaar ku ca julli fukki rakaa bu ci nekk nga jàng ca fatiha maanaam ginnaaw fatiha nga jàng ca qul huwa allahu juróom benn yoon waaw kon mbokk yi naafileeg tey gi te mooy guddi fukkeel gi ak ñaar mu ngi nekk ñeenti rakaa rakaa bu rekk ginnaaw fatiha yaa ngi ciy jàng suratul ixlaas te mooy qul huwa allahu juróom benn yoon kon mbokk ñu jox leen dig daje incha allah taala ci guddi gi nga xamante ne moo nekk suñu kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.